ginnaaw seen ndam lu yaat luñ am ci jongantey pencam ndaw réew mi ñu weesu ak jongantey gox-goxaat ya waa Refane Alla fa yor seen kàddu di dikkaat ci réalisation yi tax lycée bu Refane yaakaar naa ne ñi ko soxla woon bari na njëriñ li mu am ci commune bi baax bari na kon loolu il faut ñu san ko ci gërëm ko ci forage Soromao nga xamante ni yaakaar naa ne euh, lu commune bi soxla woon la ndax manqué ndox ci réew mi moom dafa yaatu kon bu président ñëwee mayuñu ñu loolu war nañ ko ci sant gërëm ko ci defalee collège réewmaaw itam wàññi na coono population bi loolu itam ñu ko ci sant ko ci gërëm ci xamante ne nii lu ëpp juróom ci ginnaaw ñu ngi koy xaar bu saa borom dogal mu yéeg si mu tali bi jógee ci Kaaba ñoo ngi rafan ñu ko ci sant di ko ci gërëm ko ci euh, di ko san bu baax it ci bourse familiale yi nga xamante ne nii euh, dugg na ci commune bi tu am ci solo lool jàppale population bi trop loolu ñu ko ci sant ko ci gërëm ak courant bi nga xamante ne nii village yi ci commune bi yëpp boo ci dem rek courant ba yëg na fa loolu tam ñu ngi ci secteur bi bu baax a baax a baax a baax euh, ferme agricole bii nekk ci nguy itam mënuñu ko ci ñàkk a sant ndax projet la boo xamante ne nii yaakaar naa ne euh, soxla nañ ko te ñëw na ci waxtoom ñoom ñi le sax def nañu ay njàngat ci jongante lépp loo xam ne yàqal na leen ci département bi Mor Ngom bi leen di tëggal dëgg sa dëx la am na ci ay maire yoo xam ne ci mel ni docteur Djibril Thiaw góorgóorlu na moom def na pour gagner commune ci euh, ton bu bu am solo malgré nag gañe na ko teewul amoon na ay galgal ak i texatal ak i complot ak i pexe yoo xamante ne nii euh, jaar jóge def nañ ko ko mu bàyyi ko ci gi xëy ni moom doon wax coordinateur euh, départemental ministre Mor Ngom malgré texatal yooyu muy def monsieur le maire Djibril Thiaw yëpp te ñëpp doolu loo xamante ni teg nañ ci baaram te du lu commencé tey xanaa euh, day day mag di dem waaye li mu ngi commencé depuis 2016 jéem na du ci biir baasam ngir jéem filistre ngir yàqal ko demul investir yu ñëw bu ko président ne tanal ñu gën mu xool la ko neex mu def ko loolu nag yaakaar naa ne euh, mënuñoo ñëw di def jàngat ci ñaari élection yu ñu passé te teguñu ci baaram ndax itam euh, lu ñu naan lu ëpp tuuru te yaakaar naa ne élection législative yi ñu génn nii ñëpp xam nañ ne bu ñu investiroon docteur Djibril Thiaw kon ñaari député yi nga xam ne ci département bi ñu ko perte. ndaw ñooñu sax day ñu ngi wax ci li nga xam ne moom moo di haut conseiller yii di ñëw nga xam ne tànneef ba rafetlu wuñ ko dara. bu ñu déglu woon ku ci mel ni miss monsieur le maire Djibril Thiaw laata ñuy jëm ci élection locale yi yaakaar naa président de la république Macky Sall. yónnee na fi ay ab commission boo xamante ne nii la leen taxoon a jóg mooy xool lan moo ne ay problème ci département bi ñu waxtaanee ko laata élection yi ñëw ñu trouvé ci solution ngir buñ ci yéegee ñu mën a am ndam lu yaatu. Euh, yooyu bi ñu ñëwee waa département bi yóbbante nañ leen muy ndaw ñi muy mag ñi monsieur le maire ci kaddu yu leer yoo xay ne nii euh, teg na ko ci seen loxo wax na leen ko nee na leen ki ñu jiital ci departement bi ne moo suñu coordonnateur muy ministre Ngom malgré. deful li mu waroon def en tant que coordonnateur waaye deful li mu waroon def en tant que coordonnateur te maanaam loolu moo waral ñu bari ci coalition bi ak ci parti bi mer toog seen kër loolu yaakaar naa yóbbante la boo xamante ne nii euh, tegoon nañ ko ci loxo commission yi xam Ismaïla Madior Fall moo ko jiite woon euh, boo xool tam ña fa jël kàddu ñu bari dëkk ci ay gox yu wute ci département bi ñoom itam yëkkate woon nañu seen kaddu ngir wax seen i jafe-jafe ak seen leen naqari ci département bi waaye euh, man foofu dama yaakaar ne rapport boobu nga xayit ni ñoom Ismaïla Madior Fall jëlawoon nañ ko Bambey man damaa gëm ne teguñu ko ci loxo président de la république. ndaw ñooñu de nee nañu bu ñu doon déglu seen ak maire di Jibril Thiaw lam leen doon wax laataa jongante yi ñëw duñu ci nermeelu te la ñu njot rek moom moo di rapport bi Ismaïla Madior Fall bind yóbbuwul ko président de la république. dafa répété ci investir yi ñu def ci élection HCCT yi ñu nga xam ni moom la war a dem le 4. Euh, investir investir yi mën naa ne waxtaanee wuñu ko fañ ko war a waxtaanee consulté wuñu ci ñëpp ñu nga xam ne war nañu leen cee consulté te loolu mooy la xew ca local ya bu bu ànd ñu jafe-jafe xew ci législative yi même mu ngi répété loolu nag moo tax ñuy wax président de la république ne ko euh, nay na nu déglu to jël ay. décisions yi nga xam ne nii yuy gën ci département bi la yu gën ci moom lay nekk. coppite gouvernement bi ñu koy waaj a def ñu ne kenn gënu caa yey seen maire di Djibril Thiaw. ñu ngi jëm ci euh, war a taxawal gouvernement bu yees lool nag bu ñu ci yëgee président de la république nu ngi lay ñaan Bambey cëram bu mu des gannaaw. Mm-hmm. poste bi nga xayte ni poste ministre plein lay nekk. waa département de Bambey ñu ngi koy xaar post boobu nag ñu lay wax ne dina xamal ne euh, kenn gënu cee yeey monsieur le maire Djibril Thiaw Refane mbokk yi ci commune yi ànd ak président de la république gagne locale ak député yi mu nekk ndam goo xam ne ñoom day seen ak maire lañ wax ne njàmbaarteem ak bëgg-bëgg nit ñi bëgg moom moo tax ñu am ndam loolu le ñu ngi woo président de la république mu gëstu ko moom jibril thiaw